salaamaaleykum mbokku internetu Dakar Midi ñoomati mbégte kontaan naa la leen demee saa su ne dañuy def seen émission bi xam mooy émission lamb tey ne mooy Abou Seva mais naa la fii ci ñu ne naa la ci lamb ndaanaan la ci côté bëre ah, mu fekk ko tey fi nga xamante ne mooy géejawaay si ngeen entraînement yi nga xamante ne tey def na ko fi doon ñu ko présenté Sénégalais parce que ñëpp xam nañ ko saa bu jugee géejawaay jub ah saa bu jugee ñëpp ko topp ci doomi mbër jaa ngi bëre parce que doomi mbër la nag ah ñu ngi lay nuyu lay waaw salaamaaleykum waa maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen ñaanal ci defan ak wér gu yaram di ñaanal tamit ñi nga xamante ni si samay nawle la ñu nekk si saal bi di si jiital sa jàll di la si jiital yow mi abu di si jiital tamit sama rak sama xarit Abdou Mbaye borom Jolof borom Mbuula waaw di nuyu jolof-jolof yëpp ñoom dam sama xarit yi waalo waalo yëpp Louga ba Fuuta bàyyiwuma kenn di nuyu Abdou Guèye sama président fan club sama lépp sama waay Sayer Kayre Demba Diaw Sarr sama mag Italie Youssoufa Gaye sama jarbaat itali aadama ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu tamit sëñ Góora Sacré-Cœur Sayer Kayre awakan jabaru sama gannaaw bi demb ak Anta Diaw ak waa korniis bàyyiwuma kenn daal bàyyiwuma kenn ñoom maam jaara Sebor borom mbëlëxe ñoom ñaa ñoom du jaase bàyyiwuma kenn daal abbas yi ñoom Seydina bàyyiwuma kenn ki nga xamante ne si samay nit lañu ñu dëkk corniche di nuwoo nuyu waa corniche yëpp ñoom ama ñoom nday Seck ñoom seexu ngeer xam nga bàyyiwuma kenn di ñaanal ñëpp quoi depuis boobu ak léegi gis ne làmb ay jafe-jafe jaaroon na fi lu ci mel ni corona bi yeneen ak yeneen xale yi toog gëj a yàlla def nga def ay sorties yu am solo bëri ci ay xale yu ndaanaan daal ci am ay am solo mais di boobu la ñu toog bi yàgg na xaar bi yàgg waaw sant yàlla rek ndax làmb ji moom yaakaar naa ni mbër yi mbër yi bëgg yu nooy bëgguñu kuy daan maanaam kuy daanu am coow la ñu bëgg ñu koy jël ji si jéem wut coow. man nag mbër mu ma yaakaar danga may jël jàpp ma daan ma da ngay fooye sa xel di ndax sa bopp du ma mayee dara damay liggéey 24 heures sur 24 defuma dara bañ nag ndékki añ reer courant ndox lépp dañ ma ko resal ngir may na ndax làmb métier bu ma doon def dama ko bàyyi ndax làmb kon ku bëgg lu nooy danga koy dem seeti feneen te teggi ma man nag dafa jot mbër yu mag yi may ma sens nuy mbër yu mag yi ñoom Sa Thiès ñoom Balla Gaye 2 ñoom Boy Niang nekk ay doomu mbër man noonu laa nekk doomu mbër dama fier ci doomu mbër bu ma doon ndax toujours dama koy wax sampa ba muy bawoo waalo di ñëw télé amul rajo amul journal amul mu waña njàmbaarteem ba làmb képp ku siy dund xam ko kon tey wax dëgg neex yàlla su ma juree sama fierté la te ñaari mbër nga ko mën a limal ñoom ñoo ko daan mbër mu mu bëreel ay mbokk lëng la nga ñibbi muy Fallaye Balde moo ko daan ak Mbaye Gueye ci wetu Fass ku bëreeg ñooñu rek si histoire làmb ak ay Robert Diouf maam góor ngi Njaay ay Ousmane Ngom ay Mohamed Ndiaye Robert kooku deseetoo dara si làmb def nga lu ne si làmb mu jur ma moon kon tey damay sant yàlla bu baax si mbër gi ma doon di ñaan yàlla yàlla àggale ma fi mu bëgg dem quoi incha allah. kan la tuddee. man sëñ Babacar ma sama tur normal laa joxe si làmb muy Mbay Jaw ndax ragaluma fu ma jëm ragaluma li may def. man lu nit ñi gëm gaw ko lii ma lii nga ma fekk nii loolu laa liggéey. liggéey laa gëm damay entraîné vingt quatre heures billaay wallaay taalaay aw ma combat mais ñetti yoon lay entraîné si bës bi kon liggéey rek laa gëm na mbër yi ndaw yi dem dugg si mbeex mi entraîné ñëw saal entraîné yokk seen doole dem contact yokk seen xam-xam bàyyi wax ju bare ji ak moytu bi ñun ñoo war a mën a defar làmb ñun yi ñu bëre suñu biir. Mhm. ku ne Mbaye Diaw xam ne ndaraan nga ci làmb def lu baree bari ci combat làmb lan la sa combat day jafe tuuti trop wala booy ñooy moytu wala nga xam ne fii moom lu ta fi. seetaan nga sama combat yépp man neexumaa ñeme billaahi neexumaa ñeme mbër moo ni si mbay jaw danaan la xaaral ma dem seetaan ko bu ko seetaanee day woote bañ far force dafay bañ ndax man neexuma dékku si géew non su ma ñëwee damay joxe la ma am bëre bi daa bare si man fit gi daa ne si man xeex bi daa bare si man damay xeex damay bëre te damay dóore. ma def six combat benn defet benn mbër moo ma daan. muy Tidiane Faye bu songaan Gueye. kese moo ma daan. te kooku ba mu may daan mu ngi si quatorze komba sama deuxième combat la ma daan ba may daan mu ngi si quatorze combat. boobu ñàkk a veste moo tax nga jël ko. ma jël ko ta ak ñàkk xam ku may bëreel ndax dem naa ba làmb ji soo ko xam ku may bëreel def naa ko ñett yoon xaw ma ñeent kon mbëri nañu dem gëm bëre ci sama komba bu mujj bi Pape Socé laa waroon bëreel parcelle fii la dëkk ñu dem ba quatre jours avant làmb mu feebar ñu jox ma beneen adversaire koo xam ne mosul daanu muy fils de Mame Ndiambane waaw one minute laa ko daan ci quatre jours kooku mosul daanu huit combats la def sept victoire man la bëreel huitième combat am man maa koy soog a tëral kon man du ma moytu mbër mun ma jox damay bëreel mais sama staff ñi ma dar léegi ku si mel ne Père jaw borom marché sam sama lépp mag la sama. mbër ñu sant Diaw ñi nag. jeex na nag. nekk tamit mbëru waalo nekk mbëru ndeer nekk tamit li ma doon li ma représenté si waalo moo bari ndax dama nekk sëtu buur nekk doomu mbër xam kon tey dafa jot tamit waalo waalo yëpp boot sama ginnaaw jàppale ma xam ni tamit amuñu lu dul waalo amuñu lu gën waalo toujours couleur boobu lañuy ñuy ak couleuru géejawaay ak jolof ndax boo seetloo waalo jolof benn bopp lañu ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk seen mbokk yi ñu duggante kon maa ngi leen di sant daal ñoom ñëpp di wax mbëri nañ dëggal seen bopp ñu ñëw jël ma ñu may ma sax onde la suuf onde la fu xam onde la suuf fiis da xamu dëgër musóor kooku lu mu nekk ci làmb du làmb topp média bi réseaux sociaux bi di wax rek xale jigéen di la tiktok ak di la estati naan effectivement nit dëgg la ak wax ko dëgg mbër day bëre mbër bu ñu nee mbër nga da ngay bëre Onde le mu daanee Ada Fass la gëj a bëre parce que léegi mu def trois ans wala quatre ans di moytu xale boo ko wax mu ni xale bi du ma ko may sens di yóotu fu sa loxo eggut da ngay jël si xale yi wane sa preuve comme ni nga def si Ada Fass bu fekkee li ngay wax dëgg la bés mooy jot par force mag ñi jël la waaye man làmba xam na ma dafa jaadu ma bëreeg ñi làmba xam wane sama bopp nani ni ma kii tey tey day mbay day dee nañ ma jox ku ne ni kii tey mbay day dee foofu la làmb di neexe foofu la Sénégal xame man maay kan. Mhm. mbay Diaw euh, li nga wax ni léegi lu am solo la mais actuellement am na ku am say adversaire ñan la adversaire potentiel yi nga xamante ne bëgg nga bëri ak ñoom. wallaahi lazim yàlla xam na ko caatu yoof. caatu yoof. na ñëw ñu bëre. boo gaa bu faas maa ngi dégg gaa ñu naan bana dafa daan sama mag na ñëw ñu bëri. Euh, nu mu tuddee te sax euh, onde le fou. waaw na ñëw ñu bëri. ñooñu ñooy samay adversaire si làmb yàlla xam na ko wallaahi azim te ñoom daaw de sandis ay 12 ans ay euh, Zemkan ñoo ñëpp démarré nañ suñu koom ay Boy Guèye. ñooñu ñëpp démarré nañ suñu combat Ouzin du ma bàyyi ma fenn woo leen si kanamam CNG père père Max mi ngi taxaw Ouzin mi ngi taxaw Assis mi ngi taxaw sama ménagère père Basirou Babou ñëpp ngi taxaw mais ko si wax booy bi mu moytu pour lan xanaa làmb yitteelu leen wala làmb dañ jàppan dafa nooy nooyul làmb ji nooyut man ba ñu ma daanu barki Seexu ba ñu ma daan damay bëre damay daan damay daanu waaye balaa moom mbër di daan di nga daj lu metti incha moom laa soxla loolu kese laa soxla wane sama bopp ndax dafa jot ndax man sama rêve yëpp daf may ñaan yàlla bëre Demba Diop wala arène nationale couronne roi des arènes yóbbu ko géejawaay jóge géejawaay dem waalo waalo yëpp teeru ma ma jóge waalo jaar jolof si samay xarit si samay mbokk man loolu laay rêvé kon tey man sas bi nekk sama ginnaaw dafa yaatu ndax ñi bootu sama ginnaaw a bare waaw macha allah di si sant tamit Aline Seyde ak suñu mag liiru jan ndax Aline Seyde lépp moom la boo seetloo nawetaanu mbër yi doon def lépp si ñoom la ak Fatma Dia ay B52 ñoom ñëpp xam nga ndax ba si maye bu ma doon sol muy maye équipe géejawaay man jaas moo ko jënd si xaalisam jox ma ko ne ma yow doo jënd maye man maa lay jox maye nga sol ndax kenn nga si equipe bi ndax man seetaan nga su may football damay joxe su may bëre damay joxe yàlla moom moom ma dimbali lool. léegi ñu ñëw waxtaan ci li nga xamante ne mooy combat guy gi rëg-rëg ngeen guy gi ñëpp xam ne ndaanaan la ci làmb mu dem ba ci biir ci làmb ay torotof daal koy daal mu jël rëg-rëg ñëpp ne ne du combat ñu ñëw rëg-rëg mooy ñu bari ñu rëg-rëg moo mën guy gi en tant doomu géejawaay te lan wax ci combat boobu. waaw euh, alhamdulilahi rabil alamina man ay jamono sax doon nañ ma wooye guy gi. mais guy gu ku ko yeb ku ne si bërëbu naanukaay ataaya yi nga koy yebe ak fu la écran yi tiime foofu ngay yebe guy gi waaye bu arbitre bi sifflé ba ngeen dugg si biir géew bi si ngay xam ndaanaanu guy gi rëg-rëg bu mu sonal boppam guy gi da kay daan te incha ñun dina ñaan yàlla yàlla may guy gi ndam mu ñëw géejawaay si barki Seydina Mohamed ndax amuñu lu dul géejawaay amuñu lu dul géejawaay amuñu lu dul géejawaay Balla Gaye 2 mooy suñu leader Lac de Guiers 2 Alioune xam nga lees 2 guy gi ñooñu ñoom ñoo fi suñu ay mag ñun ah, mënuñu lu dul bootu ci seen ginnaaw di copier si ñoom kon mag bu ci am combat dañ ci war a xar suñu tànku tubéy ñaanal ko yàlla mu may ko ndax ñun ñoom ñoo suñu ay idole kon guy gi yàlla na yàlla may ndam ci barki Seydina Muhammad guy gi moo rëg rëg ñëpp xam nañ mbaru mbapat la mbaru la moo xamante ni côté mbapatam ñëpp karmasa lañ ko ko nangul guy gi tamit nag ndaanaan toog ay at yi bëri daanuwul teg la ay victoire yi bëree bëree te combat boobu loolu doon conseil ñu ñaar guy gi rek bu ñëwee runkum daje tey si géew lan nga war a wax guy gi lan la war a mën a bëree dinaa wax leen na ñu gëm ma ku mu neex gëm ku mu neexul bu ma gëm billaahi wallaahi tàllaahi rëg-rëg maa fii si bëri man mbay ah Mbaye Diaw. yàlla xam na ko. yàlla xam na ko xëy na nag làmb chance moo si am. mais ñi ma xam-xam na ni guy gi egg si rëg rëg egg si mu fii si bëri lenn daal lay conseil guy gi muy bu mu fa sax nekk di xeex wala muy def neneen naka su dul noonu na def ni mu daan def au début ponkal yu fi tëwoon yëpp da leen daan ni mu doon def au début na suul ay tànkam si suuf léew ak moom rëg-rëg soxlawul xeex bi coppet tànk ba la soxla na làmba bàyyi loolu xel soxlawul xeex bi coppet tànk ba la soxla guy gi lenn rek laa koy bàyyiloo xel mooy nu sóoraale suufam bu baax a baax a baax na sóoraale suufam bu baax a baax a baax. ku ci song song mu wóorul mën ngaa juum song bu wóorul mën ngaa juum mais man guy gi lu ma koy conseil mooy arbitre bi ni far mu fexe téye ngeen bu rëg-rëg fu ko téye si ngembam làmba ji jeex na incha allah loolu laay conseil guy gi en tant que mag ak rak. Hmm. Ama Baldé Modou Lô tey la fërsi fërsi bi lan ngay wax ci combat boobu mooy diggante Ama Baldé Modou Lô combat bu bëri coow la nag combat boo xamante làmb sa mën na fee jaar yàqu ci combat boobu parce que violence ñu ngi ko ci ragal leen ak leneen lu ne mais promoteur bi nga xam ne mooy Luc Nicolaï jël na engagement yëpp ci combat boobu lan nga ciy wax. waaw mention spéciale à Luc Nicolaï suñu papa Luc Nicolaï mm-hmm. ndax. daanaka moom mooy làmb sax. dëgg la ko. Luc mooy làmb man nag awma droit péete mais man sama péete la Luc Nicolaï dama ko bëgg. yàlla xam na ko dama ko bëgg trop ndax day doxal làmb. dañ ko mayul jàmm moo waral làmb am tolof tolof bi mais buñ ko mayoon jàmm aafiyaam dépassé ñun ñii ñëpp heure bi dépassé nañu fii ak suñu père. Euh, nu mu tuddeeti paabu yi paabu baay bi sëñ Modou Niang ñooñu ñooy làmb dañuy xool ku xamul dara ñu wane ko làmb dafa am par parloo mhm. ba si mag yi léegi ni ko laay Gaston Mbengue boo seet la yëpp ay cinq combats la benn promoteur ñemewul def loolu dañu ko bañ ba génn règlement ni ku fi tëgg làmb dix combats ngay tëgg kon dafa jaadu bu tëggee grand combat bu na làmb ji dem ba minuit mbër yu ndaw yi bëre ndax mbër yu ndaw yi ñooy doon ëllëg ay mbër yu mag kantaan Ama Baldé Modou Lo nag làmb joo xamante ne sii la ku nekk mën naa daan sa morom mais man Ama Baldé bu ma ko doon conseil man mbay day song Modou mais bu mu koy bu koy song na contrôler croisé gauche bi buy jóg bi cokkaasu gauche na ko contrôler bu fa bu fa bu ko Modou Lo rek Ama da koy daal Ama dafa mel nag dafa ñeme Modou ci combat bi. moo yoon mbër boo demee ba jël avance am war ko ragal rek bàyyi man duma du ma dute benn mbër boo demee bay sooraale mbër si biir géew rek jarul ngay bëri kon Ama mën na daan Modou mën na daan. ñoom ñaan ñëpp ay ndaanaanu làmb lañu Modou Lo champion la Ama Baldé champion la que le meilleur waaye ñii di doomu géejawaay képp ku si bëreel man mbay dama am droit ñaana la nga daan ak doomu waalo yépp di ñaana tamit sama mag jow din dafa war a bëre mhm. le 19 yàlla may ka ak mbëru géejawaay yëpp booy notaire ñoom ñëpp dañuy bëre le 6 Jackson mhm. sama mbokk waala waalo la moom tamit yàlla may ka ndam ci kaw làmb ji mu dëgg ñëpp maanaam képp koo xamante ni si daal doomu géejawaay yal na la suñu boroom may ndam ñun ñii nga xam ne amaguñu yàlla may ñooy combat ñu bëre. ngalawaay sama avance mu ngi si Père Bourkhane Wade ak Ndoye. naka mbër yi dem jëli bëreek man. ñu ñëw ci règlement wu CNG yu bees yi. ci côté làmb ay ay géew gi bu ci mbëri dugg léegi ñetti butéel lañ la may nga duggee. parce que seen yéen dañuy gis ne lamb léegi day day guddee dañuy bañ lamb ji guddee léegi moo tax ñu indi règlement boobu noonu yéen en tant que mbër ma boobu est-ce am na arrangement ci yéen. CNG si yàq làmb la jëm nañ ko wax te dee dëkkoon nañ ma fi micro man ñu wax ma si CNG ak arbitre yi man ni duma ma ci wax ndax arbitre yi ak CNG ñoo far suñu jël seen décision ñun duñ ko fekk mais CNG day yàqal làmba jamono jii mu nekk ndax làmb da daan dem ba minuit 23 heures du tee. nit ñi bu ñuy bëre nit ñi dinañ ñi bëgg a làmb bëgg seetaan làmb dinañ toog seetaan mais li mu bëgg a dox si ay affaire buté loolu day yàqal làmb mbër yu mag yi nag man bu doon sama sago duñ ci fay à partir de vingt cinq million fay la xaalis nga dem préparer ji match niil dootu fa am buñ la joxee avertissement da nga def naka su noonu ñu avertissé te bu paree loolu si kees CNG lay dugg wala si keesu promoteur bi mais mbër yu mag yi dañu war a delloo si ay banta sampaka takk ay buum mbër muñ ci dóor ba nga daw jaar suufu buum yi génn ñu tas làmba ji xam ne yow mënatoo loolu mooy mais léegi làmb dafa yomb torop kuñ ci ñaari ko nga arrière di négocier làmb loolu mooy lan loolu day yàq làmb man bu doon sama sogo na gaay takkaat ay buum ancien ya wërale ko géew bi mbër moo si dóor mu jaar suufu buum yi génn ñëpp dinañ xam ni kii mënatul ñu jox ki sa des victoire mu ñibbi man loolu laa am lu may conseil wa ilaa ñu bañ leen jàppal temps ñu bëre ba xoox mais daal ndax mu njëkk mag ñi daal nañu bëre di bëre di bëre di bëre ba bëre ba amateurs yi si seen bopp ñooy bég ni nantas làmb ci amoon na fi ndax man dama nekk doom mbër nekk doomu mag lu bare xam naa ak si làmb moo tax mbër mu si jàpp ne danga may jàpp duma ma dàmm yaa ngi fooy sa xel. Mhm. dëgg ah ñu jë xam naa li ñu dese si temps bareetut dañuy fas yéene tëgg émission bi fii ci côté li nga xamante ne tey moo ci côté làmb CNG bi fi nekkoon ak bii yéen mbëri ba ba ngeen gis moo tane. CNG bi fi nekkoon moo gën bii fi nekk ndax bii fi ne état état colonisation la. dañ leen jiital ba pare di leen jox ordre li ñuy def ak loolu dul def Alioune Sarr kenn yebu ko woon waxam sax daawut bare da daan jël décision am nit ñi di tëbëg di dal mu ni pat def li muy def mais réccu day fekk jëf wees Matar Ba kii yoon comment dire du ma ne sax Bira na ñëw copier si lu Alioune Sarr doon def lu baax la mu yokk ko lu fa bonoon nit ñi di ko ŋàññ mu jël tege na le ndax ci mukaay daa bokk ci làmb man de man mbay xanaa sama sëriñ jox ma benn butéel man bu ma am dara si làmb man ndax ma gën a lépp barki Seexu Tijaan buñ ma fayoon cent million yàlla xam na fay ma cent million ma bëre ñu ma koy dagg par avertissement si ay butéel ak sama préparation nan jël ndax man xaalis ñoruma man samay nit ñi may topp ñooñu ñoo ma intéressé na man naa ñibbi si ñoom seen xool bég ñu kontaan ñoom ñëpp xam nga ñëw sa koñ kenn ko seen ne ñëw maire yi paa yi xam nga sa village yi ñi la xam ñëpp di la woo di la félicité loolu dara daf kat dàqul si àdduna sag la foo dox ñu ni diwa nga na la di dem lan moo gën a neex loolu si àdduna dara da ko gën kon nañ delloo si waat seen xel ñu bàyyi mbër yi ñu def seen préparation loolu aar la aar la si làmp ñu ngi bëgg a yàq làmb nag. Mhm. jërëjëf ah, Mbaye Diaw ah kaddu yi am na solo lool waxtaan wi neex na ah di wax mbokku internet Dakar mi lii mooy seen émission bi nga émission lamb tey ngi ànd ci ki nga xamante ne mooy Abou Sefa ah, lan ak mbokku internet Dakar mi di ngay siiw fu ne ci àdduna bi. waaw Dakar maa ngi leen di ziar yéen ñi waa dakaar bu baax a baax waa di la ziar yow Abou di ziar képp kuy waalo waalo képp kuy jolof jolof. képp kuy saalum saalum képp kuy bawal bawal képp kuy njaamur njaamul ndax man Sénégal ñëpp dañ ma wër fu ne am naa fa nit barki Seexu Tijaan man maay mbay bu yeewi askan wi. ah. Mhm. mbay da wax nga dëgg. man maay mbay bu yeewi askan bi ku mu neex nag nga jàpp ku mu naqadi tamit nga ba mais gis bëgg yàlla da koy def ci jaam. am ngeen maire bu bees. muy Ahmed Aïdara. Ah. barki alxuraan ñëpp dañu wax ma ni ay dara day jël. mairie jël madame Kanda maa ko ñaanal man. wallaahi maa ko ñaanal ndax maa ñëw fekke réunion. Mbaye Diop Mbar ngay ñaan. non ñaan waaye nag am na lamiñ yoo xamante ni yàlla def na si barke. gaawu ñoo ñaan gaawu ñoo wax. mais dama ñëw tombe si ab réunion mu politique di seet sama papa Père Diaw borom baax borom géejewaay. Père Diaw bu mali Gakou ñëw tombe si muy def meeting. ñu mitin bay tëj mu ne ma jawkaay mooy mbay jawkaay ma ànd ak sama président fan si club Abdou Guèye mu ni joxal leen ma mbay jaw micro bi pour man lu ne la mu ne ma ñaanalal madame Kanté mu jëlaat mairie Sam Notaire man maa ko ñaanal si sama xol yàlla may ko ko si anam bu yomb di ñaanal tamit Babacar Babacar boroom mouvement force ouvrière maa ngi koy ñaanal bu baax ak Cheikh Oumar Sy ak Kumba Gueye soxna docteur Samba Ndiaye kooku dama amul fayam barki alxuraan karim di nuyu tamit pambu bu baax a baax a baax pambu ak Mama Jaxumpa ndax ay nit la ñoo xamante ne si man bu ma leen gërëmul du ma gor su may bëree dañuy sonn saal bii may entraîné samay mag ak a fay def ma si dërëm entraînement lekk tëdd lañ ma entraîné fayu ma ndox fayuma courant fayuma lekk fayuma naan fukki dërëm bu ma am si sama bopp la jëm lenn lan na sas muy entraînement kon tey gis nga fii nii du ay caaxaan di sant tamit sama coach muy jàll di ko ñaanal gudd fan ak wér ak yokkute ba mu yëg ndax boroom baax la gis nañ coono yi muy teg ak coono yu muy daj ci ñun ngir rekk ñu am suñu yufu ëllëg suñu yufu bopp kon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal tamit sama rak Abdou Mbaye Tafa Sagna mi ngi Europe maa ngi koy ñaanal baax sama xarit la sama lépp la mais bandi la <laughs> di ñaanal tamit pos ñoom Serigne Sarr sëriñ Mbeng xam nga ñoom Abdou Guèye ñoom Maam Jaara Konte Abbas Guèye xam nga maire yaram Mbodj waa kër maire yaram ñoom Serigne Dior waa Waalo ñoom Ville Sall Mauritanie Ville Sall Mauritanie aw ma fayam man mbay kooku sama rakk la sama xarit la ñooy ànd depuis dami d'enfant ba nii lu ma ko wax lay def li ma bëgg lay def ay kafe ñu koy wax usmaan jaw Diaw Yarna Diaw Ngal ñoom Aldemba Gaye ñoom Cheikh Mbacke xaritu Krépin jaata Cheikh Mbacke dafa bëgg Krépin jaata ngir yàlla waay lii bu ma ko daggal mooy Krépin fexeel nga am contact ak Cheikh Mbacke ndax ku la bëgg la lu mënti am moom Krépin léppam Krépin la kon ñu ngi leen di ñaanal yéen tamit gaynde yi yàlla may leen ndam suba si barki Seydina Muhammad bu ngeen ko amee dinañ kontaan trop bu ngeen ko amee ñun dinañu bëgg trop surtout man dinaa kontaan trop ndax man dama bëgg sama réew dama bëgg sama réew bëgg sama gox soo ma fekkoon tey ñuy wax ci waalo damay taxaw danga naan kii dafa dof aw ma lu dul sama réew aw ma lu dul fu ma jóge di sant tamit sama papa Souleymane Diaw abu paa bi man bu may wax si moom sama xol day fees barki Seexu Tijaan wallaahi lazim seetaan nga keroog sama dernière sot daa wax bay jooy daa wax bay jooy ndax li mu bëgg la ko yàlla defalagul kon ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom yàlla na bu yaakaar tas yàlla na ñu yàlla àggale fuñ jëm. yàlla may ñu li ñu bëgg. ñu ngi góorgóorlu de. abu man bu du dutoon sama papa bàyyi naa bëre. barki Seexu Tijaan. ndax dafa mbër mu ndaw trop trop bari ci mbër mu xam na ko dafa bari coono trop. bari mettit imagine abu man ponk lu magum góor bu toll ni man. war a am lu ne si àdduna heure bii nii man bu ma doon liggéey ndax man nit laa koo xam ne yàlla may na ma xalaat may na ma ma mën a investir may na ma ma gëm liggéey ñu yor la ndékk ak reer courant ndox ngir rek làmb te loolu lenn kese moo ma ko yóbboo muy sama pap sama papa kese moo ma yóbbu. nga fay bor bi incha allah ñaan naa ko yàlla de. wallaahi ñaan naa ko. ñaan naa ko ko de ñaan naa ko trop. bu loolu weesoo tamit di sant Abdou Gueye ndax moom tamit bokk na si ñoo xamante ni su ma bàyyiwul làmb rek ñoom ñoo tax ay libaas màngan sayar kayre aw ma fayam boroom xombal xam nga li may waxatee rek dèjà mi ngi nii muy bawal waalu senegal lépp daal. xam nga tey sayar xombal la dëkk. sax ma combat première làmb ba jon ci yàlla tey oto moo may yóbbu làmb. sayar sama bët du xonq man nit ñi dañuy tiit sax naan kii fan lay jëlee xaalis. yàlla xam na ko mais ay nit ñoo koy yëkkati dama ko jox ñi ma bëgg ñu am engagement si man kon man lenn rek moom ma war muy rey sama bopp te incha allah dina góorlu di ñaanal tamit waa dakaar midi ñëpp képp ku si nekk yàlla may la réussir total yàlla may la réussir total yàlla xam na ko waa Dakar midi képp ku si nekk yàlla naka yàlla may réussir total ndax dañu gëm li ñuy def lii dafa metti ban heure nga jóg ban heure nga tëdd ban heure nga jógaat ndax rien que am loo bëgg am loo bëggal sa askan am loo bëggal tamit sa njaboot am loo bëgg investir ëllëg kon yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla may leen xol muñ yàlla guddal seen fan yéen ñëpp yokk tamit seen wéer ak seen kàttan lépp man sama xol sama xol dafa yaatu ndax man nit ku ma xam ku ne damay ñaan yàlla nga am lu kenn amul ci àdduna yàlla xam na ko ñi ma xam ñëpp kum si toogal lu ma lay conseil mooy liggéey ñëpp ku ba si koñ ba képp ku ma toogal liggéey laa lay gëmloo man boo yi nekk Mauritanie wala yi nekk Waalo yëpp dama yoroon benn ngan di mouvement boo xamante ni sii maa doon président bi mais ñoom ñëpp kenn du si tricher kenn ku si ne tey yaa ngi ak sa métier di liggéey ndax man xawma caaxaan boo naree ñëw ay caaxaan dama lay dàq sa xaj bañ na ko ba duma ànd ak caaxaankat ñi may àndal ñëpp ay nitu dëgg lañu bu ñu toogee kafooree waxante dëgg loolu rek moo am kon nag di sant ñëpp di ñaanal Sénégal ndam encore ndax dama bëgg réew mi man waaye nag am na ñoo xam ne bëgguñu Sénégal. sëriñ si yi wax non même bu dul sëriñ am na ñoo xam ne am na seetkat yoo xam ne bëgguñu Sénégal waaye am na koo xamante ne si mi ngi fii si saal bi bëggul réew mi moom. Algérie la àndaloon Algérie teel na toog yaa ngi dégg loolu nag lu ñaaw la ah dama bëggoon da jëlal ma ko tourneel ma caméra bi laalal ma ko moom <laughs> jërë ngeen jëf mbokki làmb jërë ngeen jëf mbokki internetu Dakar bi di ji li nga xamante ne tey mooy Mbaye Diaw li ñu waxtaanee ci làmb waxtaan nañ ay waxtaan yi am solo lool lool lool lool ah waxtaan am solo lool ci làmb ji ngeen li nga xam ne règlement yi bees yi seen tëral ji ngeen li si xale yi wax ah affaire nekk na loo xam ne arrangé wu leen ci côté làmb parce que làmb nag gàllaaj mooy filimu làmb bëri day takku bëri ay jaaj yi bëri ay jëf ci géew gi waaw mooy dama bëgg gërëm samay mag muy Pape Diaw Makan Diaw sama taw Pape Ablaye Diaw Omar Thiam Malamine Xaali Issa Marok xam nga Mamadou Samba Demba Diaw sama rak caatu paa bi nag mu ngi ñëw naka làmbatee la bàyyi xel te xam ni man maa ngi ci ginnaawam te xam naa ni bu soobee yàlla ak yeneen bi sama relève moom moo koy téye jërëjëf incha allah beneen bi si de dama la bëgg ñamal tuuti si bàkk bu sama papa daan def téel bàkk bi boo gisee ma koy def mooy que ni dafa bokk ci ñun. bokk ci lam bokk fépp. ni bisimilah ma tàggu yàlla tàggu yenante yàlla muhammad ma tàggu jibril alayhi salaamullah tàggu fatamata bintu yaa rasulillah ni maw jaan wa maw jaan maw jaan wa maw jaakum laam jinne laam dëmma laam kayaafe laam xel mu aay bët bu aay noon bu aay buur bu aay dag bu aay du maa leen um yàlla moo leen um te ku yàlla um nga um ni salaxu mexe salaxu mexe curulu mexe tamburu mexe gobarulu mi limbi fett abada daa e iman xànjar dama koy wiñaar sàllaaw ndax neex na yàlla ni mbay njaayoo mbay njaay keroog bañ koy suul ma ngi wax ak gaañ gàbb leen mu xóot wàqi leen mu yaa jàmbaar ngeen di suul mbay gëlal njaayoo mbay njaay wàlli ndaw ni saa yombe yombe géej tubaam ñi bi geer gumba gi si saañaa gumbay naa ni ruy ngàttaan yi bare na noo gumboo am yàlla jox la làppal si mbuus mi bàyyi ak ku ma yeb ku ne fi ñuy naane attaaya nga may yebe waaye bu ñu tasee nga xam góor dëgg-dëgg la billaay foofu laa yemale ba beneen incha allah jërë